bëgg jaay bëgg kii. Hmm. loolu am réew mënu cee dem. Sénégal man nag li may li may jox euh, conseil juste conseil la mooy lan mooy lan ko ak Sonko Sénégal yi dañ la wóoru à cent pour cent mais bu ñu déglu ñi nga xam ne ñoo nekk ci tuuti di wax ndax gémmiñ guy naaj du wax jàmm. Hmm. te képp koo xamante ne da nga yor alal joo xam ne xamoo foo ko jëlee. te xamoo nooy def ba lekk kooku tamit du bëgg réew mi dem loolu il faut que ñoom ñu comprendre ko te focus ci li nga xamante ne moo tax sénégalais yi jox leen. d'accord maam Cheikh Diouf la maa ngi jéglu baax. d'accord ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax alors merci beaucoup ñu ngi ak en direct ak kii di Momar Ndao bu Ascosen salaamaaleykum monsieur ndaw waaleykum salaam wa yaa ngi en direct ci Sénégal 7 Djibi Sarr Dioni moo nekk ci waxu gi alors président ñu nekkoon di waxtaanee lu jëm ci wàllu application prix yi denrées alimentaires yi ak tey ginnaaw conseil national de la consommation bi am doxoon ci diggante ministre bi ak yéen wala producteurs yi déjà nooy jàngatee décision ya fa tukkee président. la ñuy saa su état di waxee ne dafay wàññi njëg yi nag asama nag bu ko defee. Mhm. Euh, di tax ñu gën a am tam mbégte mooy dañ jàpp ne bii commencement wàññi la am na yen produit yoo xam ne jàpp nañ ne nañ ko wàññi ndax wax nañ ko tam état. Mhm. beneen bi mooy gis ngeen ne mburu mi dañu waxoon ne fanweeri dërëm ak ñaar lañ koy jaay maanaam cent soixante. mais bi ñu yegsee ba ci conseil bi ñun ñoo def proposition ne nañ ko dindi def ko cent cinquante ndax soo jëlee fanweer ak ñaar booy jënd genn wàllu miis bi dañ la koy jaayee loo xam ne day seer ndax de boobaa dañ naan du am wéccit hmm. loolu mooy tax donc buñ ko jaayee fanweer nag asama la fukk ak juróom moo gën a neex a yomb am que fukk ak juróom-ñett hmm. wala fukk ak euh, mooy cent quatre vingt daal hmm. mooy mooy quatre vingt maanaam tey ji boo doon jënd genn wàllu miis mburu bu doon mburu bi cent soixante lay quatre vingt nga koy war a jëndee mais da ngay am problème ay ñaar dërëm yi ciy Euh, beneen bi nag mooy xam nga bépp euh, li nga xam ne moom la ñuy wooyee wàññi. Hmm. Euh, fa lay problème bi di amee ba tax wàññi bi des fois duy duy duy nekk ba nit ñi yëg ko mooy li ñuy wax contrôle bi maanaam nit ñi. ñu war a saytoo ndax ñu ngi respecté njegeem déet ku ko respecté wul ñu fexe ba état yéeg la pour boobaa ñu sanctionné la looloo tax bokk nañ li nga xam ne ñu ngi koy woo état mooy li nga xam ne mooy contrôle bi hmm. ñu taxaw ci taxaw ci seen képp laay kàttan euh, donc euh, yaatal ko ba nga xam ni euh, ñi nga xam ne ñoom lañu ñuy wax volontaire de la consommation itam nga xam ne ñu ñoo ko proposé woon état ba ci mille ñu liggéey loo leen ci li nga xam ne mooy contrôle bi. Mhm. beneen bi tam mooy fexe ba yeneen way takk der yi fi nekk muy police gendarmerie service di et cetera ñoo ñëpp daal comme ñoom seen liggéey mooy fexe ba lépp loo xam ne sart la lu yoon tracé ñu respecté ko comme ça ñu itam ñu mun la leen mm. boole pour en ku gis euh, njëg goo xam ne dañ ko ba wax mu nekk njëgu cher. Mm-hmm. d'accord mais mais gis nañu ah. wàññi wàññi am na président euh, sànq maa ngi jox ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy boulanger yi surtout ci wàllu mburu mi euh, ñoom dafa mel ni wàññi bi donte ne dañoo dafa mel ni dañoo weñ seen loxo ngir ñu daal di ànd ci dogal gi déjà loolu ak ñoom seen taxawaay Euh, ban jàngat nga ci def président yow mi nga xam te ne yow la jàpp ne kàddu nga ngir consomateur bi toog ci këram. alors réseau bi dafa mel ni moom mooy daw. Mhm. président waaw d'abord. waaw allez-y allez-y. lay dégg. waaw maa ngi lay dégg léegi nii maa ngi lay dégg bu baax a baax a baax. waaw waaw léegi nag la xam ne moom mooy euh, mbirum mburu mi. Mhm. d'abord ñun ñu ngi am mbégte lool ci li nga xam ne état dégg na comme liñ ko posé pour que mu indi njëg yi cent cinquante jëlee ko cent soixante mhm. euh, beneen bi ci nekk nan mooy xam nga boulanger moom toujours chaque année dañuy wax dañuy yokk mburu di indi coow loo xam dafay xaw a waar mais boo xoolee boo xoolee ne d'ailleurs euh, euh, njëg yi li nga xam ne moom mooy mburu mi biñ koy fixé boobu blé mi ngi doon jar trois cent euros la tonne ci lañ ko fixé woon dix neuf mille léegi blé bi wàññeeku na bitim réew loo tax ñu wàññi ko wàññi ci quatre mille francs buñ ci mais ñu koy jaayee njëg yooyu mais ñoom ñu ngi naan non dañ ko waroon a gën a wàññi et cetera et cetera et cetera bon mais je pense que état dina xool nan la mun a trouver ay forme yoo xam ne dina tax ba euh, ñu defal leen li ñu wax mesure d'accompagnement mais wàññi bi ñu leen wàññi moom wax dëgg yàlla ci farine bi wàññi la bu am solo boo xamante ne bi euh, war na tax euh, li nga xam ne moom mooy njëgu mburu bi ñu jëndee ko fanweeri dërëm mhm. léegi bi par rapport ak suukar bi nga laajal ma ko suukar bi Matar aca laajal ma ko président ah. su ko defee nga nga mën a àddu ci ah. ligne bi allo président salaam waaw maaleykum salaam waaw mbiru mbiru suukar bi suukar cristallisé bi da euh, yan ndogal la la la ki nga xam ne tey mooy waa compagnie sucrière sénégalaise dégg nañ ndaw bi nga xam ne moo leen fa teewlu mu yëkkati ay kàddoom euh, ginnaaw li nga xam ne moom d'accord ci prix yi. waaw ñoom buñ ñu def ko 625. Mhm. Euh, bon loolu waxtaan xam nga moom mooy ki nga xam ne mooy seet li ñuy wax structure des prix mm la ngay euh, gagné ak lan nga la nga xam ne moom ngay jaayee pour que ñu mun a jël en compte intérêt ñëpp euh, beneen bi mooy waa compagnie sucrière xam nga ne commerçant yi yàgg nañ wax ne di jógee fii di ba ba nga xamante ne bi moom mooy Saint-Louis pour lu jënd mburu pour lu jënd suukar excusez-moi euh, dafa sori léegi nag loolu nga xam ne nag moom la leen état Euh, waxoon foog naa ak commerçant yi ñu ngi ci nekk di di war a jëm si ci loolu mooy fexe ba am fii ay dépôt yoo xam mm-hmm. mm-hmm. nii bu nit ki buggee jënd du daal di jël di oto mm-hmm. am na jàpp nañ ne buñ ko defee dina gën a wàññil coono commercant yi war a jógee fu sori di ñëw Euh, dañuy laaj bi rek day nekk par rapport li nga xam ne moom mooy mbir réew mi souveraineté lañu woote muy ceeb bi euh, di diwlin bi ak di suukar bi dan lañu état lan la war a def ba sukkandiku ba euh, fii ak 5 ñu bañ a jëlee ji dara li nga xam ne moom mooy si li ñuy dundee bitim réew. waaw loolu moom mooy li gën a gën a gën a gën a am solo parce que bokk na ci li nga xam ne doon na mën a tax ñu am maîtrise ci njëg yi mu nekk ne loolu fii lañ koy koy eh, bayee di ko fit defaree ba tax du du seer eh, kon nag eh, loolu nga xam ne moom mooy souveranté am na sax côté yoo xam ne commencé nañ ko cee am mais ba tey day laaj organi disant bay ci soble moo ëpp fuuf li ñuy soxla ci soble mais ba tey donc añ foofu souveraineté waa jafe-jafe yoo xam ni Euh, manque d' organisation moo koy def kon jàpp nañ ne état su defee loolu maanaam souveraineté boole kook organisation dina tax ba du demati bitim réew di jëndi ay bagages di indi mm-hmm. ndax xaalis boobu ñuy dépenser mu nekk ay centaine de milliards ci jëm jëndi ay bagages di ñëw lii indi fii euh, buñ ko dépensé woon jàppalee ko ñi nga xam ne ñooy béykat yeeg producteurs locaux yi incha allah rabbi dina tax ñu mun a am suñuy di bay daal bay dundee te bu boobaa dina tax ñu gën a mun a euh, lijjanti li nga xam ne mooy njëg yi plutôt ko loo xam ne bitim réew lay jógee. jërëjëf kon euh, sëñ Momar ca ca ngërëm ñeel na la jibi waaw jërëjëf waaw di ko jërëjëf maa jërëjëf jërëjëf. jërëjëf euh, Momar Ndao moom mooy ki jiite ASCOSEN euh, ASCOSEN association des consommateurs du Sénégal donc moo doon àddu noonu ci suñu nag euh, téléphone bu mu jokkoo gi donc ñu ko jaajëfal tout à l'heure également am nañu kii di mooy ki jiite président wala ki nekk président fédération nationale des boulangers du Sénégal mm-hmm. askan wi tamit ñoom la ñuy déglu nii fi mu toll nii ñu teewlu leen asalaamaaleykum kenn ci askan wi mbokk mi na def. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam wa ngeen ñu ngi nuyu bu baax di leen ziar. di la jaajëfal delloo ziar wér. ñu ngi rafetlu sa liggéey Djiby Sarr. jërëjëf jërëjëf jërëjëf ku baax. ñu ngi rafetlu sa liggéey bu baax Djiby Sarr. jërëjëf waay jërëjëf ku baax. di euh, nuyu waa Sénégal set yëpp. ñëpp a ngi lay fay ñoom Matar ak ñëpp ñu ngi lay fay. waaw waaw. wax dëgg yàlla man moom man moom man moom man moom man moom man moom seen bi laa man moom seen bi moom sama seen moom moom laay si wax dëgg yàlla. jërëjëf yow borom baax nga yow moom borom baax nga. waaw man moom seen bi laay topp daal wax dëgg yàlla maa ngi siiwul lépp ñoom lay maane ak. waa matinal beeg yëpp wax dëgg yàlla. waaw ñooñu sama ay sama ay xarit sama ay noon lañ teg. Mm-hmm. ñooñu dañuy xuloo man rek. waaw waaw mooy sa sa sa sa yi. ñoom Ulay Mané ñoom Mami Samb. Eh, ci kanam sax vingt heures incha allah ñoom ñooy ñëw ma leen koy fàttali yéen ñu ñuy suivre. Ah. waaw waaw waaw gis nga yéen moom wax dëgg yàlla man moom seen sama seen la woon seen maîtriser maa ngi ko bëgg maa ngi waaw wax dëgg yàlla liggéey bi nag moom mi ngi mi ngi jaar ci yoon. jaajëf jaajëf jaajëf jaajëf. jiw yow da baax da ngaa yaru yow ku baax. jërëjëf kenn du yéen waaw yow da ngaa baax moo tax ñun moom ñun moom Sénégal rek la ñu am te dañoo gis ne yow da ngaa réew mi loolu wax dëgg yàlla. jërëjëf waay réew mi rek a ñor. te gis nañu ne sa liggéey moom gis ñu ci ay tappale gis ñu ci lenn loo xam ne nii bu njëkk da nga daan gis journaliste foog plateau di def yoo xamante ni da ngay leer na kii day tappale. jërëjëf waay. Mhm. jaajëf. jub rek a wóor ji <laughs> waaw waaw. allo. waaw dafa mel ni réseau bi nag mooy xaw a maa ngi tuub bu baax a baax. waaw waaw man ne bu njëkk da ngaa gis journaliste fekk ci plateau mu leer na la kii lay tappale. Ah, dëgg la mais yéen moom wax dëgg yàlla seen liggéey moom wax dëgg yàlla dafa rafet. dafa set dafa tegu ci yoon. dëgg fa yàlla.